asalaamaaleykum mbokki internet wasaare news ñu ngi fii ci EMG euh, euh, e euh, automobile nekk fii ci à quelque part de de de de la route am benn incendie bu fi xew sànq ñu wooñu ñu ngi nii bi ñu ñëwee fekk nañ fi ñii di sapeur pompier fekk nañ fi tamit ñii di force de l'ordre yi peut-être pour faire. Euh, le constat et les dégâts mais sapeurs-pompiers ñu ngi continuer di fay lakk bi parce que ay oto lañ gis euh, dafa mel ne ay oto lañ gis euh, mu am ay saxaar sapeurs-pompiers ñu ngi si nekk en ce moment nii. waaw comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fii si EMC seen parking automobile bi lakk ginnaaw si loolu si la sapeurs-pompiers ak ñii di force de l'ordre yi police ñëw ñëw fii il paraît que dafa mel ne oto yi ñoo jëloon. Euh, lii de ay flamme sapeurs-pompiers euh, nag depuis lors ñu ngi si ñu ngi si nekk ñu ngi si nekk mais nag euh, il y a plus de mal bi ñu fi yegsee amul benn perte de vie humaine en même temps kenn gaañu si. sapeurs-pompiers ñoo si nekk mais dafa mel ne. li ñu doon euh, arrosé dafa mel ne fay na.